julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réewi ko wër jaajëfal aaj sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura teraanga ak poche dara noo ngi ci programme bi sallallahu alayhi wa sallam indil waa adduna laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum bi mu ñëwee programme baa nga tudd manhajul xayaati assaaliha waaw système de vie bu baax vie boo xam ne bii idéal lay doon walla qualité moom la indil xeet wi def ko quarante points waaw def ko quarante points ñii politique nañ jël loolu ñoom ñépp ku am parti walla nga am coalition ñu jël programme ñun ñiy falit nañuy fal ci programme fal ci programme mooy tax ki falu di doxal programme waaye bu dul fal ci programme xanaa di dox di di fal ci ay santiment ku falu it ci sentiment rek ngay dox te ay sentiment doxalul am pénc waaye ay ay sentiment wërta fal njiit sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee dafa teg fële ay sentiment indi ci pénc bi quarante points yi nga xam ne ci lañu nekk maag yéen diirub bi rabiul awal teroo ba fii nu toll démb bi njëkkati jotaay bi ma tolloon ci jox jirim yi seen àq ci programme bi la bokk jirim yu góor yi jirim yu jigéen yi handicapé yu góor yi handicapé yu jigéen yi dañoo am ay àq ndekke ca ci penc mi waaw ñoom ñépp ñi néew doole ñépp am àq waaye néew doole ga tax na mënuñoo jot ci seeni àq bu ñu bàyyee ñi am doole dañu noggutu ñi ñëw doole xissa bu am solo la ci alquran ca daawuda daawuda ak atte baak ñaar ñam doon atte kenn ki ne ko daawude man day damay ñëw di clamer damay porter plainte diw mu ne ko lu lu xew mu ne ko moom ci ay xar am na ci xar yu bari daa am xar yu bari moom man ma am menn xar moom am na téeméeri xar yu manqué benn mu naa waaw mu ne man nag menn xar laa am waaye fi ne programme am yépp mooy nu mu jotee ci sama xar mi yokk ci xaram gis nga Daawuda attekat la woon bu mën a atte waaye tooñ gi métti na métti goo xam ne gii dégluwul waa ji dama na ko rek la xal dala maka ndax tooñ gi dafa dafa xaw ma flagrant lañ ko xaw ma wala flagrant flagrant délit ñooñu ko ñoom maître Baro di waxee waaw ak ñoom maître ma soxna kan yàlla na yàlla yokk leen wér waaw ak ndeysaan maître boo kunta <laughs> léeg-léeg mën na ko ñoo bokk yaay waaw gisante gunu nag waaye noo bokk yaay ngeen baal ma benn bis la yaayam xëy rekk ne ma dama bëgg xam sa yaay rekk ma xam <laughs> waaw yaayu bëgg xam sa yaay rekk ma fexe ba ñaari meer ya toog waxtaan seen waxtaanu meer ndeysaan keroog gis naa ci ñoom mbégte yoo xam ne ci laa defee yaayu maître bu kunte yaay yal na ko yàlla yërëm te yërëm sama yaay ak seen yaay waaye noonu ko ñoom maître di jàngalee Daawuda noonu la meloon àttekat la musta juum ci àtte ndax loolu la ko sunu borom sant fakkum bayna naas bil xaq fahkum bayna naasi bil xaq Daawuda waa ji dafa ñëw def benn plainte ne ko waa ji téeméeri xar la am yu manqué benn mel na xar dong moo am te mu am cent mu ne ko waaw mu ne ko man quatre-vingt-dix-neuf xar moo tee ma am cent kon menn xar laa am moom quatre-vingt-dix-neuf la am mu ne mu ne waaye pexem yépp ak programme mooy jël sama xar mi boole ci xar penc mi am na ci ñoo xam ne am nañ am nañ ndax kii liggéey ci barab weer bu dee mu am la ëpp cinq cent mille lu muy doyee di kalangaatu fi jàmbur weer bu dee mu am la ëpp cinq cent mille am na ñoo xam ne seen weer bu dee dañ am quatre million am ñu am lu ko jege mbaa lu ko yées tuuti waaye ñi liggéey ci barab bi ñu nekk société la walla entreprise ñoom 30 mille lañ ci am a ak néew waa ji da koy booleeg yoon am hmm? waaw waaw kenn mësul gis loolu waa ji day boole lim am ak liggaay di am koccaatu lépp ni ko tépp nañ leen tey laa leen di fay la 15 laa leen di fay la 20 laa leen di fay xaar leen weer wi di ñëw rekk tabarkalla ba gaa yi xëy di grève de faim mu tax penc mu mel noonu ci économie ci jikko yu mel noonu penc ma lu nit muus muus ak loo xereñ xereñ du dem ndax yàlla bëggut koy lekk ñaq jàmbur te ñun ñëpp moo nu yilif dénkaaniwul kenn ma wax la ko tey ngeen baal ma ci ton bi hmm? na jirim yi jot seen àq na baayo yi jot seen àq na jigéen ñi jot seen àq ñi néew doole nañ jot seen àq handicapé yi nañ jot seen àq réew mi nun ñëpp a ko bokk kenn ëppuloo ci sa morom carte d'identité nationale rek tabarkalla nun ñëpp nun ñëpp la tàmbale ci président ba ci man mii nga xam ne maa ci gën a eh, ñàkk solo <laughs> waaw lu am solo la mbokk yi waaye programme mu alayhi salaatu salaam hmm? Pape Mor nii rekk la mën a mel moo tax ñaar fukki at ak ñett àdduna si yëpp yëg ne mi ngi fi ñaar fukki at ak ñett àdduna si yëpp yëg ne ngi fi mu tàmbalee ci zéro bi mu fi jóge mu àgg ci cent yu mat sëkk waaw defi lu kenn deful waaw góor ga ne ko law lam yalu fi fadail kawni talaatuhu tabaxal bariyatu fi dalma ci ca bàkku na wa ndeysaan waaw ah, wal mustarshidaati mbokk yi li ngeen xam ci tomb boobu moo xam li ma ci ëpp mu ëpp li ma ci xam waaye daal ñu néew doole ci penc mi te bëgg jot seen doole nañ jot seen doole ñun ñuy ñun ñuy xëyee ci banlieue bi di ñëw Dakar ay kunu na ki daaru cubb ak yu ni demee loo teel teel a jóg seen soxna su ŋàbbu paan waaw ŋàbbu paan waaw fu jëm marché ba ñuy jaayi jën yi walla marché ba ñuy jaayi lujum ya bu demee ca jën yi jël fa ñaar jàpp ñetti jën waaw te ñoom moomu du tëw ñu daggal ko mu def ci paanam jaay bu noppee ñëw werse borom jën yi maximum trois mille la ci am bu fekkee dana ko ci am bu subaa mu xëyati bàyyi ci kër gi njaboot goo xam ne gi ña ciy góor àggaguñ CM2 waaw ñi ci ña ciy jigéen déggaguñ alxayri ci waaw mbokk yi ñooñu duñ buñ jotul seen àq ci pénc mi coono du jóg ci ñoom mukk ndeysaan waaw wax naa leen gone gu jigéen gi mu yóbbaale woon di ko waar mu far ma waar <laughs> waaw ma di ko waar mu far ma waar ndeysaan kenn mësu ko gis waaw dama ko doon waar ca col ga mu wax ma li tax mu soloo nii waaw ma ne cel dooro loolu mooy ñaar fukki lu tomb ak juróom-ñett note leen ko soxna sala ak ndey faatu jàlloog di san maam mbay tunkara ak inspecteur arfan ñaar fukki beeg juróom-ñeent vingt ci programme bi mooy anfiqu mimma sax lii ma leen jox joxe leen ci <laughs> borom bi naa ne lii ma leen jox joxe leen ci waxul li ma leen jox joxe leen ko déedéet li ma leen jox joxe leen ci day sant li ma leen jox joxe leen ci ndax bisa ngi ñëw nga bëgg a joxe joxe te la ticc bisa ngi ñëw nga bëgg ku la jox ku la jox te ticc kon joxe leen ci li ma leen jox boo léegi jox leen ca waaw waaw an ko joxe leen ci li ma leen jox ma takk yàlla na joxeel ci li ma la jox joxewut jékki ba sukkoraat ñëw kooku may wax rabbi law laa axatani ilaa ajalin qaribin fa asaddaq yàlla comme tey la benn fan ci octobre may ma ba <laughs> le quinze may ma ba le quinze lée mu ne bàyyi ma ba la cinq ñu ne ah, la cinq sori na mu ne may ma kon fii ak vingt minutes waaw ci masaalikul jinaan wa arqabul ashyaa lil amwaati raddun ila dunya ma al xayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfaahu min xafalu rekk borom bi nee na joxe leen ci li ma leen jox mbokk yi ki la jox ba noppi laaj la ci lim la jox wax dëgg yàlla am jox ko wartu nekk problème déedéet bu fekkoon si mbay dafa taal ataaya ba furne di am ak ak këriñ waaw ba forne di am ak këriñ sëriñ aaji ture jóob ñëw tibb xal ca forne ba sidaati forneem fay mu ñëwaat ci sëriñ aaji ture jóob ñaan ko xal wom boyale bu sëñ aadi bañee xamul li xew joxe leen ci li ma leen jox hmm, waaw mu tax ci càlle bu nit mësaani jóg dugg kër nogo yi ñu nangul ko ngoro ndax ni nogo yi demee ak baayam nangul ko ngoro ga ndax ni nogo yi duggee ci seen néeg loolu moo daan am démb mooy lan joxel ci lima la jox waaw ndax ki tal ki tax nga tal ko tëlu ko woon jamono ji nga ko bëggooy tal mbokk yi sunu borom ne nag liñ lim lim ñu jox nañ ci joxe nañ ci joxe ñu doon ab tab nag te ba ñu doon am saax am saax mooy kiy dugal xaalisum force dugg wala mu koy pasar pasare bay bokkam mere ko ndax sunu borom nee na boo joxee ni bukkut ak ni nga war a joxee say bokk ña nga doon jox ñooy mujj mere la bu joxe ba dakkee waaw fa taqauda maluman waaw ñépp ni xanaa du kii moo tax àdduna lu naqaree defar la ku yabu rek dégg njàngale alayhi salaatu salaam yi ndax moom kum jàngal àdduna boo ko doxalee sa àdduna jag anfiqu mimmaa razaqnaakum joxe leen ci li ma leen jox hmm? dañuy nekk ci li dañuy nekk li genn waay joo xam ne ab docteur la woon bu mën a faj mu ñëw ci nit fekk kooka nekk silmaxa mu ne ko mën naa laa faj ginnaaw yàlla tafli ci loxoom lam ca tafli raay ca xar kanam ba kooka ne jar di gis mu ne ko duma yem ci faj la waaye damay faj sag ñàkk loo gën a bëgg mu wax jur gi mu gën a bëgg mu ñaanal ko génn ñu at ma nit ki am ci jur loo xam ne tabarkal la ëpp na xel mu dem ci keneen fekk ko mu la fañ ne ko mën naa laa faj ginnaaw yàlla tari ca loxo ba ay yëf raay ca tànk mu jóg taxaw ni ñépp mu ne ko loo gën a bëgg ci jur mu ne ko jur sàngam mu ñaanal ko jur googu bari ciy loxoom mu ñëw ci troisième bi fekk ko moom tam mu yor feebar bu mel ni feebar yi ñee waaw mu ne ko mën naa laa faj ginnaaw yàlla taf la ci loxoom raay ci yaram mu méer koom ñépp loo gën a bëgg ci jur mu wax ko bi ñu doxalee ay at docteur boobu walbatiku sol yeneen mel neneen ñëw ca ñoom ñett kum ci ñëw jur gim la waxoon ñaan la ba nga am ko menn la la cay la la ci laaj bu dee xar wenn bëy bu dee bëy wenn nag bu dee aw nag kim njëkk laaj daf na ko jamono daa naqari ku ñaaral ki def na ko dëkk bi daa naqari ku ñetteel ki na ko loo fi gis jëlal ndax man kat judduwaale ko daf maa dab te itam nit ku baax ni yow moo fi jaaroon fajal ma sama feebar ñaanal ma ma am kon nag jëlal loo ci soxla seetal ku njëkk ka mu ñaanal ko mu dellu ca lam nekkoon ku ñaaral ki noonu ku ñettal ki mu bàyyi ko li mu am àdduna noonu lay doxe suñu borom daa bëgg kum jox ngay joxe ku ñuy jox te doo joxe xamoo li xew si Abdul Ahad moo daan wax ne radiyallahu taala anhu looy bëgg na koy joxe looy bëgg rek na koy joxe ndax borom bi moo ne li ni ngay joxe laa lay jox waaw tabarkalla loolu mooy ñaar fukkeel tom beeg juróom-ñeent ci quarante point yi mu des onze euh, numéro trente wala fanweer ci manhajul xayaati as-saaliha gis sallallahu alayhi wa indil waa àdduna ci aéroport ak ñaari valisam 23 fois 2 venn valis bi ci lañu nekk mbokk yi laalaguñ laalaguñ benn bi venn valis bi moo def 30 points wala 30 pièces yoo xam ne mooy programme mu dundu xeetam wi moom la leen ci indil waaw trente point bi mu ko jàngalee saaba yi jël ko jox ko ak na attaabiuuna attaabiuuna jël ko jox ko asalafu saalix min al umma ñooñu jël ko di ko joxlante ba ak agsi sunu sëriñ si yàlla yàlla fayal ñu leen ba si suñu sëriñ si waaw tabarkal kon fanweer point mooy waxuuloo xawlan sadida <laughs> dee leen wax wax ju jub dee leen wax wax ju jub mbokk yi lu yàqu ci pénc mi ay wax a ko yàq luy yàqu ci pénc mi la ci ëpp wax a ko yàq wax rek àdduna si nit ñépp a ngi liggéey Afrique fi nekk nii nit ñaa ngi liggéey Europe ak Amérique wax noppi ñépp a ngi ci sunu penc wax rek soo taalee télé tele boo taal débat télé boo taal nag débat te débat yi du jëm ci nu ñuy def ba gone yii di mbëkk toog débat yi du jëm ci foofu pourquoi débat yi warul am ci loolu nu ñuy def ba xale yi toog buñ ci débat ba gis bunt ñu doxal bunt ba débat yi lu tax du jëm ci sunu njàng mii indépendance 1960 ba fii nu toog jàngaguñ suñu bopp jàngaguñ suñuy maam jàngaguñ suñ diine jàngaguñ suñu bopp di jàng tubaab bi ak làkk tubaab bi ak maami tubaab bi pourquoi débat yi du jëm foofu pour débat yi du jëm ci lu suqali daara ji ba 40 pour cent yi budget bi 20 yi daar ji moom ko pour débat yi du jëm foofu lu tax bu debaa jeexee duñ conclusion yi duñ ci tiiree dara teg ko ci penc mi parce que débat politique la diw war naa bokk ci list bi diw wërta bokk ci list bi waaw diw listam bi parité la diw listam bi du parité waaw rek tabarkal la borom bi ña ne wax ju jub lay defum pénc waxukaay yi nag am lay ku tudd téléphone waxukaay yi dafa am lay ku tudd téléphone téléphone moomu am ay ay ay ak sœur yoo xam ne ñu ngi ci biiram nekk ay application yenn yi ay audio lay doon yenn ya ay live lay doon yenn yi TikTok lay doon adduna gi bëgg tukki ci wàllu googu ña moom TikTok te def ko sax uuf ko am na ci yoo xam ne ñun àgg nañ fa te ñoom àgguñu fa mbokk yi xooloo li naasi xusna barki démboo mbaay gàmm gee weesu duggi gële alxalifa sëñ Babacar Sy Mansour loolu la indi woon comme te mu gàmm wa xuulu linnaasi xusna wala bokk wa xuulu linnaasi wa xuulu xawlan sadida ci laa toll wax leen wax ju wax ju penc mi su jàggee rek wax wax wax a tax waaw moo tax ma koy waxaat sunu mag ñi koo ma sa gis am na ku nekk ci wetam koo xam ne kii ci communicateur traditionnel lay bokk waaw soo waxee lu sa wax ju kawe kawe mu jotulil la te wax ji ngay wax jot na waaye comme communicateur la bu toogee ci wetu ku nekkul communicateur dana mën a communiquer ak nit ñi communication boo xam ne dana wuuteeg ki ki jàngul communication du ko mën looloo tax ngay dégg ñu naan diw di kaay muy jottali jottali loolu dong la de waaye jottaliwu ko pour nit ñi dégg ko moo tax soo waxee ba wax ja am luñ ca war a jubbanti moom mi jottali moo koy jubbanti nit ñi déggee ko ci seen nopp déggin wu bokkut ak déggin wi nga xam ne ki deful communication da koy jafe mbokk yi bind bi jeexut dañu ak suñ koy yëkkatee ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seeni këyit bëgg leen a firim fàncal xibaar yi toi firim fàncal na ko colof ñan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi nga xam ne mooy sànni wax jaww ji ba waa Kër Mbay Fall mën koo dégg ak suñu sponsor bii di c 3 li ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa